asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy safoo si 313 digital la site bu doon euh, des informations fiable net ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen wax ne leen euh, dal leen ak jàmm ci lu gën a fës euh, ci wàllu people dañ koy daal dañ koy daal di doore ak ki nga xam ne moom mooy No Face No Face nag nekk ex mari ki nga xam ne moom mooy Mia moom nag No Face daal dinañ koy gis mu daal di publier ci page Facebook am ay parole parole yi nag. du lenn lu dul mu naan euh, moom euh, ki nga xam ne mooy No Face mi ngi wax ne moom yalwaan na maanaam ca daara ja la nekkoon waaye tamit moom doon na bay mu dolli ci ne euh, doon na jaay li nga xam ne doon na yar li nga xam ne moom mooy ginaar waaye tamit daal dinay jaay li nga xam ne mooy cosmétique maanaam yoroon na cosmétique di jaay ay tamit ay vaisselle ak ay vêtements ak ay vêtements moom No Face moo daal di xamle li ni mel mais aussi mi ngi wax ne moom nekkoon na li nga xam ne moom mooy maçon mais aussi doon na jaay ay téléphone defar ordinateur mais aussi tam mi ngi wax ne jàng na li nga xam ne moom mooy couture maanaam ñaw Euh, di wax itamit ne jaay na li nga xam ne moom mooy ay géej ay jën ak yooyu yëpp moom No Face mi euh, ngi koy xamle itamit doonoon na euh, li nga xam ne moom mooy livreur nekkoon na GP mais nee na instant bi jamono ji moom No fees actuellement je suis chanteur rapp producteur réalisateur acteur business businessman et célibataire VIP moom daal loolu la daal di euh, posté si li nga xam ne moom mooy euh, page Facebook am loolu itamit daal di jaaxal euh, daal di jaaxal li nga xam ne ñoom ñooy internautes yi moom noo fees mu yokk ci ne ak koo mën a doon foo mën a bokk. Euh, jàppal ne euh, jàppal rek ne bu daggul dina daal di euh, dikk yàlla na leen yàlla may jàmm Nagasaki Boy Pea jolof jolof 100 pour cent moom noo fees loolu la daal di bind daal di koy partagé ci li nga xam ne moom mooy page Facebook boobu noonu di maabo waaye tamit gis nañ ne ak ki nga xam ne tam mooy moom tamit daal dinay génn daal di tontu ki nga xam ne moom mooy noo fees ndax mi ngi koy wax nan ko bari jaar-jaar taxut a xam àddina bëri xam-xam taxut a civilisé wane yiw taxut a am diine loo bëri doole amoo maîtrise sab nani sab nite des na mu yokk ci ne loo bëri bëri diine te amoo fois mook zéro ñoo yam loo rafet rafet setuloo euh, saful bu ñu jógee foofu itamit dañuy daal di euh, dem fenn gis nañ ni ki euh, démb ñu ngi doon wax ne Birahim ture nekkoon nekk journaliste foofu nekkoon foofu noonu ci Sen TV moom nag dafa daal di jógee daal di toog en plein direct daal di wax ne démissionné na ak Euh, daal di sant bu baax a baax ñi nga xam ne waa D-Media tey ci suba nag lañ jot ab nouvelle euh, di wax ni euh, moom Birahim Touré jamono ji mi ngi foofu noonu ca leeral TV daal di doon moom nag jamono ji moo nekk li nga xam ne moom mooy le nouveau DG de la rajo Leral FM. moom Birahim Touré mu ngi foofu noonu ca leeral ba moo nekk li nga xam ne moom mooy Euh, DG bi buñ jógee foofu itamit dañuy daal di dem ba léegi ci polémique bi nga xam ne amoon na ci diggante divorce sumbulu ak ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diop Khass mu am na kenn ki nga xam ne nag euh, daal dina ci àddu di xarit ci ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diop Khass moom nag mi ngi wës turu euh, sëñ Modou Kéemaan nekk xarit lool ci Abdoul ci Diop Khass moom nag moo daal di joxe une bonne nouvelle di wax ne bile sëy Soumboulou ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diop Khass ñi ngi ci waxtaan te léegi rek ñu daal di delluwaat sumbulu daal di delluwaat ca néegu sëyam mais nag sëñ Abdou Kéman moom sëñ Modou Kéman moom mi ngi moom mi ngi sermoné ki nga xam ne moom mooy euh, Maodo Diop xaas loolu la koy daal di dippee ndax moom mi ngi naan ko euh, sëy nag neexul da ngay jàppale ndax sa jigéen ku ne xam ne ne xelam dafa daal di euh, gàtt maanaam moom sëñ Modou Kéman daal dinay jox ay conseils yu baax ki nga xam ne moom mooy xaritam di Diop xaas kon nag loolu mu nekk bon nouvelle boo xam ne mën nañ ko jàppandi ne léegi rek nga gis ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diop xas ak sumbulu ñu seen sëy daal di euh, continuer fii lañu ñu daal di euh, wàcceewee euh, suñu ay kàddu di leen joxaat dig daje ndiki ëllëg waaye naka bu leen fàtte di abonné si 313 digital